bien. voilà ñu ñu taaxeet lu tuuti bu ko defee après ñu daal di koy jël euh, moom mi nga xam ne moom mooy le ministre mu daal di àddu jëmee ci li nga xam ne moom mooy situation bi lee ñu ñu taaxeet lu tuuti rek mbokk yi. maa ko bu jéem a kon nag lu jëm ci wàllu wàllum paas ñu ko delloo fa mu nekkoon bu jaree ñu sacrifice léeg-léeg ñu daw ba yegg bu ñu ñëwaat ñu perte sax waaye ñu xam ne ay sénégalais lañ dañ ko bu boobaa sax dina leen gën a may force nag ëllëg si biir bu ñuy waxtaan suñu biir dañ daw ndànk daal ndànk tamit loolu dina ci am solo euh, loolu daal moom mooy man doléance xam nga yéen a daan wax doléance man maa am doléance tey parce que Sénégal yëpp may interpellé yokkum paas yokkum paas yokkum paas amuñu pexe dañuy dugg dem ndax amuñu oto amuñu leneen mais ñun mbébét bi ñu am mooy gën leen a jàppale ba seen gar routière gën a moderne gën a am yenn technologie gën a am moyen de contrôle yi ndax xam nañu ni yéen a ngi def liggéey boo xam ne daanaka oto bu jugee gare routière du faral di def accident pourquoi parce que am na contrôle bi parce que chauffeurs yi euh, sensibiliser nañ leen et cetera parce que xam na ne dañuy daw heure yegg si heure moo tax ñu ngi def tout pour xeex ba nga xam ne gaar su gaar gaar sauvage yi dinañu ko éliminer yokk gaar routière yi moderniser ko équiper ko ak ay pont bascule ñuy mën a xam ne oto bi génn surchargé wul oto bi génn contrôlé nañ ko techniquement oto bi génn chauffeur bi nalaw na nalaw bu doy enchaîné wul loolu c'est extrêmement important statistique yëpp leer loolu dina joué ñi ngi góorgóorlu ci yoon yi ñi ngi lu ñu ngi koy def ñi ngi xool Kaolack ak Tamba naka lañ koy defaatee deux voies lépp ñu ngi ciy def mais nag ndimbal na ca fekk loxoy borom il faut yéen aussi wax fa dëgg yàlla ngeen jàppale paas bi ni ñu ko yokkee ëpp na te jaaduwul munoo ci sa morom ngay nga nga ne da nga koy exploiter parce que xam nga ne amul choix donc liñ nekk di ko def yëpp ak CETUD c'est pour ñoŋal transport améliorer ko moderniser ko procéder à un remplacement rapide du parc xam nga am na lu ñu waxtaanee sànq ci yi dem ci interrégion lu tax bus yi nga xam ne étranger yi ñoo ko moom amul porte bagage bagage en soute-là mais ñun Sénégal ñu fi am ay bis ñun dañoo am porte bagage bus de transport warul am porte bagage yooyu yëpp bu ñu ci bëggee jàpp pour ñu moderniser ko mais da ngeen ñuy jàppale tamit. mais bu dee dañ leen koy defaral ba mu ñoŋ pour ngeen après ngeen di noot askan wi parce que amuñu choix noot la de nooteel du leneen yërëm leen askan wi ngir yàlla ngeen wàññi paas yi tey tey tey def annonce askan wi mën a noyyi mën a dem tabaski ci jàmm kaat ci jàmm ndax dem bi ale bi am na retour bi day am léeg-léeg nag def leen tuuti sacrifice dinañu góorgóorlu ñun ci lépp lu ñu war a def incha allahu rabbi dinañ ko def. Je, je, vous fais confiance. Merci. Et Merci. De passer devant euh, le président des transporteurs, le président des, chauffeurs qui sont là. Le message est euh, kaddu yi leer na te ñi ko war a dégg yëpp dégg nañ danañ ci taxaw incha allah. on peut continuer. Allez-y, voilà mi ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ta ñu continuer ba léegi li nga xam ne moom mooy euh, visite bi lee ginnaaw kàddu yi nga xam ne le ministre daal dina ko yëkkati xam naane ne du ñàkk itam mu yëkkatiwaat yeneen kàddu euh, ginnaaw wala sax buy amal li nga xam ne moom mooy remi symbolique bi lee jëm ci 500 taxi à gaz écologique dina yëkkatiwaat yeneen kàddu wax itam ci li nga xam ne bërëb bi ni mu mel ci liñ ci war a yokk ci liñ ci war a defaat par rapport euh,

voilà le ministre ay Malick Ndiaye mi ngi noonu di continuer ba léegi di def li nga xam ne moom mooy tour fi nga xam ne moom mooy ci gaar bile gis nga nit ñi euh, ñëpp ngi euh, daw ngir daal di koy euh, gis ku nekk itam ma ngay yëkkati ay kaddu daal di ko koy jagleel ay ku nekk itam ma ngay wax cofeelam gi nga xam ne am na ko ci ministre bile di. El euh, mbokk yi mu ngi noonu euh, mi nga xam ne moom lañu ñu dénk wàllu transport moytul foofu moytu moytu moytu moytu mi ngi noonu. Carrefour mi ngi noonu ba léegi di def li nga xam ne moom mooy euh, euh, visite bile fii nga xam ne moom mooy ci euh, gare routière bu maraîcher gis nga ba léegi mi ngi def tour ndax na gare bi dafa nekk gare bu bu mag dafa nekk gare bu mag ba léegi mi ngi def li nga xam ne moom mooy tour. defoon nii rek. gis nga mi ngi noonu di saafonteeg euh, ñi nga nekk. voilà. mi ngi noonu di saafonteeg ak askan wi n'oubliez pas aussi que le ministre des infrastructures des transports terrestres il est de Jolof te boo xoolee ñu nekkee fii ci biir côté la majeure partie ay moroomu Jolof Jolof lañu ñi dëkk daaro Jolof ñeneen ñi dëkk Linguère gis nga mi ngi saafonte ak euh, ñoom euh, di waxtaan du ñàkk ne euh, xamante nañu bu yàgg tey mu daal di ñëw en tant que ministre di def visite fi nga xam ne moom mooy ci béréb bile. gis nga il est tout souriant euh, di euh, saafonte ak ñoom euh, fi nga xam ne moom mooy ci béréb bile ñu continuer ba léegi. ñu continuer ba léegi gis nga waa waa Daara Jolof ngi noonu ñoom itam mën na ko ci waa Daara. waa Daara Jolof ngi noonu tamit. wax ngi noonu ñu ngi continuer ba léegi li nga xam ne moom mooy visite bi lee yaa y a beaucoup de personnes ndax nag euh, fii nga xam ne moom la ñu nekk ministre mi ngi noonu. mi ngi euh, noonu ba léegi di euh, continuer le ministre di wër fi nga xam ne moom mooy bërëb bi leen ñu ngi continuer ba léegi mbokk yi. gis ngeen ko noonu mbooloo mi nga xam ne euh, daal dina euh, ñëw euh, ngir xool si ko gis nga leen noonu mbokk yi nous sommes en direct fi nga xam ne gis nga nit ñaa ngi noonu ku nekk itam la ngay wax grand doo la ñu ñu ba léegi. le ministre ba léegi mi ngi noonu di continuer def li nga xam ne moom mooy visit bi les mbokk yi. nous sommes en direct fi nga xam ne moom mooy ci gaaru routière bu maraîcher ginnaaw remise symbolique bi nga xam ne war na koo def si ak itam visite bi nga xam ne def si na ko itam ngir xool ah, li nga xam ne moom mooy ah, lieu bile xool lañ ci war a defaat waaye itam dégg nga doléance ah, yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkee ñi ngi koy wax jëmale ko ci wargaande yi wax ko itam ci euh, bon de sortie ak li ni gis nga noonu mu ngi euh, dugg ñu avancer tuuti